kan ak Viviane déglu ma de moom Amina Poté ak Viviane mais Amina bu kiwin la. dund mooy lan génn. dañuy jëkkër ak jabar dañu doon dañuy sëyee. loolu Zeyna moo njëkk moo njëkk indi problème bi doomu buuba loolu jigéen bi Zeyna. Mhm. dañuy naan mandi ñoom ñett ñëpp dañuy mandindoo tuxandoo mandindoo def lu leen neex Amina Poté Viviane hébergé na ko pendant trois mois. ci biir mhm. sëyam muy sëyeeg jëkkëram di sëyeeg Viviane. te coow loolu bu ñu ko gis noonu fii mais boobu. mais mais c'est-à-dire que dafa am xam ne bu ñu la ko ko gëm man boo ma góor jigéen bi sama xarit la dama lay bàyyi parce xam ne yow yéen ñaar yéen na bokk fii soit góor góor góor nga wala. benn femme bu soog fekk Amina Poté bu toog mu ne ko yow problème am yëpp xam nga sa problème am. Mm-hmm. tant que demoo ci tànk Kouthia ko baal ma àq. Mm-hmm. parce que yow Kouthia moo la indi biir TFM nga nekk fii mu indi la fexe ba nga am embauche nga dem ba ci biir xeex ko. Mm-hmm. boo toogee doo tudd turam booy sant da nga naan. maa ngi gërëm Ndiaga Ndour ak Pape Ndour ñoo ma te ñëpp xam nañ ne Kouthia la fi indi. Hmm? yow laaj Amina Poté maa ko njëkk ci ko ci benn baar bu ñu naan chez Mbaye Ndiaye. waaw ah, Mbaye Dia. Hmm. benn copain serveuse bu nekk ci benn baar. Hmm. dama ko nopp. mu ñëw la ngay liggéey mënuma serveuse laa. ma ne ko serveuse la mënuma baar bi. wala ko si xaalis boo xam ne fay maa ko amee yow waroon waroon nekk ay def ñu xale bu ndaw ci nga xam ne par vingt trois ans ngay def vingt quatre mm-hmm. def affaire bu baax. Mm-hmm. fekk man xam naa ne bu bu bu séddale bu guddi gi. Mm-hmm. ba mu jeex parce que xam nga rek gars yi dañ koy réglé. mu expliqué ma nag kaama ne ma lii moo tax moom mu dugg ci. ma am na benn télé bi waaj ku ñëwee dinaa la fi indi bi télé bi ubbee bi Youssou Ndour wax ma ko première première jigéen ba njëkk a teg tànkam TFM Amina maanaam génne foofu ci mbir boobu dóor ko fa. laa ilaa te euh, xam. am na ñu doom ak seen taalibe waxu Viviane indi wuñu fi loolu ma mi ngi mooy li ma def mu ay doom mi mbokk am ay xale laa ko teg ne. man damaa bëgg xam xam ca xëy na yàlla dina def ñu dem ba daje ci kanamu yoon mu wax ma lu ma yabee ba teg baatu giwin ci sama der bii te mu leer ko ne li muy wax ay duul waxul dëgg day pen mais sama kër na man ba ma gisee drapeau couleurs yi dama tiit mais man loolu bugguma ko man loolu bugguma ko ci audio bi dañu ñëw loolu xam nga ne sax amul gën loolu man daf may def reetaan réew mi même jiw yi sax defe naa sëyuñ yéen da ngeen bë yéen a bëgg waxtaan mais xam ngeen ne fii jiwin yi fi nekk sax sëyuñ amul benn jiwin bu fi takkante te gis nga yow li nga xam ci jiwin rek laa xam ci jiwin da nga koy dégg doxagoo ba fekk ñaari jigéen yuy sëy ah li ngay dégg góor jigéen yëpp doxagoo ba fekk benn góor jigéen muy sëy keneen xam dañ koy dégg mais lu tax man ma war a tuumaal nit yi man en tout cas sama loxo ci kaw man xaw loolu man duma ma giwin te kuy giwin mu leer ma man du ma la fréquenté ku ci nekk giwin na xam ne bëgguma ko nekk sama xarit bu yeboo nga nëbb ma ko ndax bu ma ko yëgee duma la weer mais dama lay bàyyi. sama diggante ku caa lu may def lu dul mais yoon attañu mais lii du fawekaay parce que loo xam ne daf ko wax. ñu jël drapeau bu ma gën a bañ man man drapeau boobu man drapeau boobu dama ko bañ man taalibe Serigne Touba laa luy tilimal yoonu murid du jóge ci man man bañu ma ko ma bañ de man tey mën nga ma xool duma la neex fii yéen ñu fi daje yëpp du ñëpp laa saf mais amul kenn koo xam ne ci yéen journaliste yi mën ngeen maa waxal dara fii nit ñi nëbbaluñ kenn Sénégal yéen ñëpp ku ci nekk ngi moytu ndax bañ sa ayib génn je suis pas waaye lii di ay xetu drogue lii du ay yëfu giwinantu lii di ay ay ñu ñàkk fayda am jëkkër am far ay taxawaalu ñu lay tëddee gauche ak droite loolu du man fii yéen ñi taxaw ñëpp bari na ñoo xam ne xam nañ ma bu baax bari na ci ñoo xam ne seen gannaaw caméra lañ ne mais ku leen joxoon micro ñu wax lii dama dafa ñaaw man sama